ndax moom noonu lañ ko mën a euh, tuddee. déedéet man gëmuma loolu man li ma gëm mooy euh, président Ousmane ak kilifay Touba yi dëgg-dëgg relation bu rafet la keneen ku jàppalee nag yow la neex mais ci diggante bi depuis ma commencé def politique ba léegi naa ne amul kenn ku mu ciy seeti seeti politique ngir bëgg am lu mu ci yow relation bu naturel lay nekk d'ailleurs ñi mu ciy seeti ñëpp di tëjoo waxtaan ak ñoom pile de une heure de temps deux heures de temps ba génn di wax ak yow lu xeet ak ndax moom gëmul ne mën naa gagné ci gagné gagné confiance nit ñi ci jaxasoo ay kilifa diine li gëm mooy bëgg nit ñi di gëm ci discours nañ ko gëm ak ci programme moo tax tey jii li muy waxtaan ak yow mooy damay def politique na léeg-léeg nga cliquer ma baax na nag ki yi mu ñëw toog ba ci sa kanam waxtaan ak yow nga xam kooku rek mooy kan ak lan la ëmb pour Sénégal mm-hmm. moo tax bi mars 2021 problème yi démarré mbir mu compliqué bi Cheikh Mamadou Mountakha ñëwee ñaan ko daf ko may naturellement tegu ci dara ci ginnaaw mm-hmm. gëm na ne kii kilifa la li ko tax a jóg lu baax la di ko doxaloo jàmm réew mi la moo tax bi waxee ba eggal mu ne fii ñu muy digal néew fi ñu muy ñaan ñuy bàyyi ñoo fi ñu muy digal ñu bàyyi ñoo fi nekk ña fa nekkoon ñëpp di am luñ ci sikki sàkk mun leen arrêté leen loolu ngeen wax suñ mun taxaa kilifa réew mi yëpp la képp kum ñaan da bàyyi mhm. daal di bàyyi pour teg ci tënk ay point nag kat jiw mi ñu sañoon point yi mu respecté ko bu ko defee jàmm mën a am fii 2024 ñu mën a organiser élection mhm. Sénégal yëpp dégg nañ la ko. waaye dégg nañu xalifatul am li mu waxoon dama leen amee lu bor tey bor bi ba léegi moom la askan wi di xaar. waaw boo xam naa rek dina ko def ndax Cheikh Mamadou Mountakha moom gëm nañ ne mooy xalifa Serigne Touba te li ko tax a jóg lépp lu baax la te wax nañ du benn du ñaar ne yàgg naa ñaan ki fi nekk ki fi nekk moo ko mayul Sénégal yëpp dégg nañ ko te ku ci nekk gis na kilifa yi ni ñuy doxee ñoom seen seen seen jikko bokkul ci di weer nit wala ngay xawi sutura nit li mu mën rek mooy ëmbët nit lu baax kooku nag bu fekkee ni bëggut lu baax alkane moo ko ñor bu ci tàbbalee bopp moo xam mais daal damaa gëm ne en dehors de xalifa général de ñaan Ousmane mu bàyyi mais Ousmane xolam bu rafet ak ëmbal bu mu kilifa di nii aw yiw tax na moom fii Sénégal moom du fa torox mukk te lépp lu mu bëgg dina ko am mhm. ndax nit ki moom mënoo leble lu baax ba pare saxam ba dina ci fekk Mhm. loolu moom c'est impossible. mais ndax jotale ngeen tey ci kilifa gi situation bi nga xamante ne tey Ousmane mi ngi koy dund ñenn ci njabootam ñu ngi koy dund. Mhm. ndax ñu ngi ci biir kaso beeg ñu ni man ndax jotale ngeen ko kilifa bi ak naka ngeen jàngalte dogal bi nga xamante ne jël nañ ko ne fii ba élection yi dootul recevoir ci benn way politique. waaw xam nga kilifa gi jàpp naa ne jot na ci. auma ci yàqin nag mais gëm naa ne li xew ci réew mi. ndax keroog sëñ Abou Abdou da doon wax ne xëy na kilifa bi joteewul ci li xew ci biir réew mi. waaw déedéet boobu sax ci affaire bu mbëkk mi la. immigration waaw mais gëm naa ne dossier Ousmane bi li ci xew lépp xam na ko ndax bi cas bi gënee garaaw ci grève de la faim bi moo recevoir waa yooyu askan wi jox leen tàndarma ne dem leen ne ko mu bàyyi grève de bi dina wax ñu ñi mu war a waxal ci sens yi la Ousmane woote wax man ñun bi ñu communiqué ne arrêté na grève de bi kilifa gi dama waroon def def na ko xëy na waxoon naag waa ji ndax dégg nañ ci ginnaaw bi ay rumeur ñu ne waa ji dana ko malheureusement la ma la waxoon du ma ko man ndax bu ma ko bàyyee day gagné élection yi kon kooku moom la parce ah, que information yi ma am mooy xalif bi bokk na ci li tax mu gën a mer ba du ma recevoir te benn homme politique loolu ci la bokk ndax dafa jàpp nañ koy fooye ndax moom dugul ci yénn pare heure bu ñu demee ba ci biir ñu génnaat ci lañ waxoon ndax lii du première fois mars 2021 lañ ko njëkk a dugal ci ci géewu politique bi dem ba ci biir lañ ko waxoon defuñ ci dara waaw ah, ndax mars 2021 du caag rek opposant bi ñoo dem ñaan ndimbal moom moo dem ñaan ndimbal ndax bu mbir yi démarré kilifa gi nga tudd léegi muy sëñ Abdou dem na ci sëñ Muntaxa leeral ko li xew lépp ci réew mi ak li a xew mm-hmm. bi yàlla dogalee réew mi tàkk ay waa ji ñaan jumal la sëñ Muntaxa yónnee ay médiateur pour ñu ñoo def médiation bi yàlla dogalee bi jeex moom ñu jàpp bu ci jógee day changé ndax la dem jëm ñaayo mais Sénégal yi déglu naa leen ngete gi dégg yëpp day dem préparé ay ngànnaayam kon jàpp naa ne booba ndax ci changé nga dégg sëñ Abdou Samad yàgg naa wax duñu ko dégluwul lii xew lépp bu fekkoon dégg nañ ko du am waaw kon bu kenn la sëñ Muntaxa wax na mais ñi muy ñaan ñoo ko mayul nga dégg sëñ Bass Porokhane tamit leeral lam leeral lu am solo daal sëñ Muntaxa nee na ñoo jote bu waxee kenn ki mu dégg ke déggu dina taxaw Sénégal yëpp xam ne kii ñaan na ko moom moo ko mayul te Sénégal yëpp dégg nañ bi fa yeewu askan demee mooy leen dama leen sant bu baax ndax bi réew mi jaxasoo bi ma leen ñaanee may ngeen ma te it am naa bor boo ko waral dinaa leen ko fay mm. kon jàpp naa ne li xew ci xool di nga gis ku yor sa nopp di dégg di nga xam fan la toog di fare loolu nag ku ci nekk Sénégalais bu ci nekk am nga liberté analyse ko nam la neexee mooy ñun daal ci lii lañ nekk daf yi may waxoon ni li ñu defoon mars 2021 dara luñ ah, kon da ngeen di feelu Macky Sall si lim ne rëccuwul dara ci mbirum Ousmane waaw déedéet ñun ne rëccuwul ci dara mooy li ñu kilifa yi ñu bàyyi hmm. ndax gëm ne xalifa Serigne Touba kum ñaan dina bàyyi ci réew mi ndax Ousmane Sonko li ko topp ci ay Sénégalais di ko topp li ëpp njaboot Sëriñ Tuubaa la moo tax bi mu fa demee mars 2021 bi coow jeexee bi muy leeral li ëpp seen njaboot lañ doon Sëriñ Muntaxaa mm-hmm. bu doon ko sax njaboot bëri nit ñoo xam ne ay ñu faatu ñu ci li xew yëpp nga am ci kàddu nga yëg ak nga bañ ko yëg li ci topp rek mooy ndax sa entourage dañ la yëgal wala sa entourage duñ la yëgal su ko bu foofu la wax ñu bëgg koo diaboliser. Mhm. ndax benn sëñ Mountakha ni mu bëgg lu baax ba lu xew Turquie mu yónnee ay millions lu xew Maroc mu yónnee ay millions ay nit mënuñoo dëkk Sénégal gii topp géej gi ñu ne deux cent et quelques personnes faatu nañ ci. Mhm. sëñ Mountakha ne ci réew mi yónnee ko dara Sénégal gi da koo yëgul ndax ku mën a dimbal ay réew jàmbur sa réew mu ta wax foofu la sëñ bi waxee mhm. te mars 2021 bi sëñ Abdou Deme ak sëñ Mountakha leeral ko la mu koy leeral bi coow li jeexee sëñ Mountakha daf ko wóoluwaat sant ko suur kasarog la ko woon fekk boobu sëñ bi amoon na dëj ndax boobu am na benn soxnaam bu wàccoon liggéey mhm. sëñ bi mu ko wooroo daf ko sant gërëm ko ne li tax ma la ñaanal nag xaar ma di la woo ñëwul nga leeral ma ko ndax ñu mel ni war dama ko mhm. mooy ñu ma wax li xew kon jàpp naa ne ñi nga xamante ni ñuy entourage sëñ bi li bi dégg rek li sëñ bi bëgg a dégg rek lañ koy wax duñ ko wax réellement li xew ci réew mi te loolu nag malheureusement sooyatuñ ko woon noonu Mhm. ndax il faut que ñoom ndax da ngay dégg sax barki dem am na ko def woo sëñ Abdou naan ko waa Daaru Minam kontaanuñ sëñ Muntaxa du xalifa Daaru Minam bu doon xalifa Daaru Minam sëñ Abdou du ko yaakaar xalifa Sëriñ Tuubaa la mhm. xalifa Sëriñ Tuubaa bu ko defee murid yëpp la njaboote nañ bàyyi tënk sëñ Muntaxa nekk xalifa Daaru Minam mhm. sëñ Muntaxa xalifa général de murid la sëñ Muntaxa dimension weesu na Daaru Minam weesu na Daaru Xudoos weesu na Lundi képp koy murid rek mooy sa kilifa kon nag ñun murid yi nag dañoo am dañoo am dañoo am dañoo am du ma ne dañoo am droit ndax mbir moom boo xasee ba nekk sëñ Tuubaa doon na la néew bu ñu sang ci kanam ko koy sang mm-hmm. waroo am la bañ mais mm-hmm. képp ku yaakaar ne lii lu baax la nga interprété xalif bi ne ko lii lu baax la nañ ko def loolu dara pour man mm-hmm. ko daal jàpp naa sëñ Abdou foofu la waxee te sëñ Abdou li wóor bu ne ko woon demal sukkóori nga taf bu ñëwati Tuubaa sëñ Abdou ko defati ndax suñu ndax ak góor ñëpp ñu mais tey jii lu tax yéen ñi nga xam te ci njaboot gi ngeen bokk solu waaw est-ce que defuñ ko. <laughs> ñu gàntalal leen. waaw mais xam nga xam nga soxna Awa ñun Touba lañ dëkk sëñ Mountakha moo ñu gënal lépp li wóor bi wóor daal mooy ñun li ñu faral di wax moom la wax mooy Touba ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn ku fa ëppale sa morom bi amul ndax sëñ Touba bi muy sos yoonu murit soo woote ba mu woote woon ci Mbàkke Baar dégg la mu waxoon du ma di jaay kenn sëñ mu roq yi bu sa xam ne wax ji moo ko moom mooy doomu bàyyi kenn Cheikh xam ne lii moo ko moom loolu li fi nekk li fi suñu borom la képp ku fi ñëw sàkkoo ko ni ko nit di sàkkoo ma jox la ko kon xam nañ ne mouridisme noonu lay doxee mouridisme du lu ab fay moom du lu kenn moom yëfi Serigne Touba la yëfi Serigne bokk man mi jàpp naa ne man mi Cheikh Thioro Mbacke mi yasal awoo jëm yaa ëppale dara loolu laa jàpp mhm. kon jàpp naa ne yoonu murid ku jàpp ne kenn moo ëppale kenn yow dèjà xamoo lan la Serigne Touba woote ndax bu doon mbirum famille day gàtt ñu ci bokk ñëpp duñ ci bokk ñu jëriñ ñëpp duñ ci jëriñ ñaata nit ma gis ñoo xamante ji ñu ëpp li ci xéwal Sëñ Tuubaa yi sax ku ñu tudd Sëñ Tuubaa mhm. cest à li mu woote ëpp na bii ñu koy tuddee mais lu tax ñu leen di gàntal non non jàpp ma loolu man jàpp ma ne dañuy gàntal jàpp naa ne ku ci nekk ndax état dafa bëri bel ni ma ko yàgg waxe kër kilifa yëpp lañu infiltré nañ infiltré kër Sëñ Muntaxa bi noonu lañ infiltré woon kër Sëñ Saliou noonu lañ infiltré woon kër Sëñ Abdoulaat noonu lañ infiltré kër kilifa diine dañ ko daan seet si mu yeewee ay gan di yeewee ay gan kenn du bëgg mhm. bu ñëpp demee mun la boo eggee neen ki la yónni c'est-à-dire ki la yónni mooy xam ne yow arrangement ñëw ngir loo xam ne ko li mu bëgg bëgguma ko li ma bëgg moom xamu ko ba di ko bëgg. kon moom suñu tubaab sax bi mu fiy dund gannaaw moom mënut a mucc ci loolu asma Cheikh Mahamadou Mountakha am loo xam kenn mënu cee mucc état dafa bëri doole te kër kilifa yëpp am na ci ñoo xam ne état lañ fa teewlu guddi ak bëccëg ndax la preuve signal bi bu jógee Touba ak gii mooy événement yu mujj yi dem Porokhane seeti fa sëñ Muntaxa pour leeral ko situation réew mi sëñ bi génn ko Porokhane ñu génn vidéo bi mais sëñ Muntaxa dana toroxal sëñ Abdou loolu fa fekk ne sëñ Muntaxa nee na sëñ Abdou bu eggee na nga sëñ Ousmane Sonko na bàyyi tooñ kon fi mu da nga jàpp ne état da moo xàjjale kër diine yi non loolu moo am loolu moo am état moo tax kër kilifa diine yi kenn mënut a jubóo kenn mënut a déggoo tey jiitu wàll fa am bu kenn ku du état tey jii boo jógee sax ne Touba dañu faa war a def nangam nga des ko jóg attaqué la ne la kii day dévier sëñ Mountakha te état ngay waxal ndax tey jii ñun ñu nekk assemblée nationale di woote budget bi nekk commission soxna aw ministère bu ñëw boo càmbaree budget tey doo xam ne bëgg a sa a tuur tellement niñ delloolee gannaaw Touba tellement niñ gannaawale Touba ndax bërki dem euh, rapport bi ANSD def pour dernier recensement yi gis nga Touba place bi ñu occupé ci Sénégal mhm. ñu ne à part de maintenant département Mbacké mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal waaw département boobu ministère bu ñëw boo càmbaree lan lay def ci département bi la muy def Wuro Sogui moo ko ëpp la muy def Matam moo ko ëpp tey jii Touba Macky daf ko considéré comme benn vie religieuse mooy bu defaree benn dëkku diine 50 defar Touba 50 Touba lu ëpp la mooy bu ñu nee bit sa Sénégal 7 mille et quelques milliards la Touba mhm. ndax 13 pour cent ci koy contribué. Pooram Dakar bi boo fi wàccoon compte nañu bu dee fukk la mën ngaa war ne ñeent yëpp Touba la jëm si juróom benn ci des la yeneen région yi di xëccoo mhm. kon dëkk boobu lu ñu fay participer war nañ ko mën a doole dëkk boobu ñu ne la amul assainissement dëkk boobu ñu ne la amul ay weer yu baax dëkk boobu ndaw ñi liggéey clandestin yi nga gis li ciy jóge Touba mu ëpp foofu liy jóge yeneen région yi ah, Touba ñu ne la chaque année ñetti junni nit dañ fi mokkal alxuraan chaque année ñetti junni nit dañ fi mokkal quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom dañuy mujj dawal sa rek quatre-vingt-dix pour cent dañuy mujj nekk ci mbedd yi tey bu ñu la ministre de formation des jeunes ak waa